tur sa tur nee bon man daanaka li ma war a leeral lépp guy gi leeral na ko man daanaka liiru jaan sax laa gën a bokkal que guy gi parce que liiru lu bari ñoo ko defandoo liiru jaan. numéro ba mu gëjee woo léegi ëpp na vingt ans mais sama bopp bi la nekk 534 44 li ci nekk topp xam ngeen kon xam kooku ku fonkoon la du dëgg mais liiru dama bëgg mu defalaat doxinam parce que gis nga boo wootee ni yow monument nga monument Guédiawaye dafa am noo am noo noo war a doxee du dëgg maanaam bañaluma ko loolu mais Balla Gaye 2 mi muy wax euh, ak Dieye production may wax man la ma leen jariñ ak la ma participer seen carrière ñoom ak la ma dund ak ñoom dund ko ñoom Balla Gaye 2 ba ko commencé tudd maanaam at yi passé la matul ñaari at bi mu commencé wax liiru jaan mënuma géejawaay Balla Gaye 2 kombaam dama ko daan jàpp géejawaay à part à part Alioune Seye ak Balla Gaye ab du Diouf rek lañ daan dégg ñoom ñëpp bu ñu bëggee làmb man maa tax liiru jaan day wax mais man maa ko mag man xam ñooy ànd waaye maa ko mag ay weer du dëgg damay noppi xam li ma xam bu ñu bëggee bëree kon man la Balla dañ ma daan jël si mënuma daan ma jàpp di ko daan di ko daan Balla Gaye xam am na comme yoo xam ne man ak guy gi ñoo daan ñëw di bëree di boobu mënul dara ba yàlla def mu àgg fii kon Balla Gaye participé naa ci carrière am sama cicatrice bii ci combat ak Yékini la combat Balla Gaye Tyson man Tyson fi muy entraîné boobu man ak Alioune Seye 2000 am combat maa ngi am combat ba 4 heures matin heure boobu Tyson boobu tey yooyu kiis neex na kiis de maa ngi ti mi ngi ti yàlla def kiwis jour boobu ay ceebu kiwis lañ doon togg doom jooju ñàmbe gaañu na yàlla na ko yàlla xare àjjana du dëgg li may wax nii duma ko seetaloo kenn sëy na bu aawo nja aawoom sama place lañ xamante boobu jéey moto la yor daan ma yóbbu ci ci ci ci place ci ci saalu Habib Guèye du dëgg xam ami Collé li may wax jabaru ñàmbe yàlla na ko yàlla yërëm moom day seede jéey man maa ko indi géejawaay du dëgg jéy bi mu commencé couleur liiru jaan matul juróomi at ci ginnaaw ba ñu xamante yàggal mais alam daal li may wax ni seer na ko mi ngi mi ngi États-Unis mu ngi mi ngi Espagne alam laa daan jël par weekend ñuy dem kër Medina dem kër kër kër kër kër di dem kër kër jéy xam nga di fa di fa yendu jéy ñëw di ma ses jéy bi ñëw géejawaay di gisul kenn ma la naan gis tout dëgg kon ñooñu muy wax fa ma jaar ñoom jaar mu fa ak moom mais loolu dama koy dénk rek ñaari baat du dëgg maanaam même rakkam yu jigéen day njaay maanaam ku ma fonk la mbër su may wax baal ma nga dimbali ma rek bàyyi ma wax di dëgg parce que man bëgguma maanaam su may wax nii day mel ni damay dem di wax te man awma temps loolu parce que man Sénégal moo may déglu wax yi sax bëgguma di ci di ci dugg xam nga liiru fa ma jaar moom man xam naa moom xam na du jàmm rek laa ko yéene yaayam nday njaay rakkam bu jigéen man daf maa fonk fu ma gis taxaw waxtaan ak man yaayam tamit noonu yaayam dëkk nañ suñu kër kër gi ñu nekk ni sama kër yaay tabax nañ ko dëkk dëkk nañ fay at ñu abal leen ko du dëgg te ba mu fa gëyee yàgg na mais teewul xama nga jàppalu ma ko dara mais nit buy wax day wax te yàlla tax billaahi wallaahi kaamil bii laa wax lii bu ma ñëwee ci aéroport ñëw naa kaf ak xam nga ba sànqare bi may jël maa ko sànqare mu ne ah ko so doom ndey liiru jaana yi ne lay xam nga kon xam nga kuy wax loolu man jàppalu ma ko dara bi problème bi amee benn problème bi fa la ma fekk du dëgg bi muy saaga guy waxuma damaa jóg dem parce que xam naa sama bopp te liiru kii sama xarit la liiru sama xarit la. du dëgg guy gu su jaful woon lu dul noonu dama koy woo dal ci kawam mais ci tànk dànk dafa woo jee woo pam bi mu woowee pam mama pam mama woo ma jee woo ma ma wax ak moom xam nga ni ko amul problème man dinaa wax ak ñoom comme que demee nii man dama naa bàyyi bu mu xëyee dafa guddi ma wax ak ñoom liir bu mu xëyee dafa romb nuyu ma xam nga ci laa toog ma sama ñaabu. mu amaat problème ak guy gi ma nekk su ma néeg ci kaw yàlla rek moo tax may wax ma nekk su ma nekk ci kaw guy gi mii ñuy werante mu saaga guy guy gi woo ma ni ma mbër man de wax dëgg yàlla liiru jaan bëgguma mi ngi toog di ma saaga te kat man kilifa laa ma ne ko mbër mun ma ma ne ko yow ak liiru boo xoolee liir bu la saagaa bàyyi noonu naa jox numéro jéey nga waxtaan ak jéey mais bul nekk di kii ak moom yooyu man dinaa wax ak moom comprendre nga. mu xëy nuyoo maa ko wax mu woo Pape ñëw ma wax ak moom wax ak kii mais bi mu xëyee moom nuyu ma comprendre kon bu mu waat waat dafa fort liiru man wax dëgg yàlla jàmm rek ñun amul lu mu koy siis man moo géet bi ñu xamante yàgg na man ba may tukki xaw ma moo géet isam la moo géet états lañ xamante yàgg na comprend nga mais dafa am loo xam te ni moo géet li may géej la comprendre nga ku ne ku ne mën nga sangu génn sa morom sangu su mais gis nga maanaam day wax te yàlla tax comprendre nga liiru maanaam xoolal wax ji xam nga maanaam na koy seetaan comprendre nga man suma xarit la du dëgg te vraiment awma daraay ki ñaan lu ma ko yéene parce que boo yéene nit kiiñaan ñaan da yéene koo xam daf laa raw wala daf laa tare man ba may yor ay téléphone bu cher kenn yoru téléphone bu cher ba may tabax kër fi ma dëkk kenn tabaxul ba may tukki mbër yu bari tukkiwul comprendre xam nga lu am lu lu mu am lu ne sama ginnaaw la ko amee kon dafa am loo xam ni nit maanaam na bàyyi ba waaye ba ni nga monument nga Sénégal dina déglu yow waroo nekk di xuloo wala ngay xeex wala ngay def li remarqué naa ñeenti dëgg yoo xam ne dafay dem di histoire xam nga loolu asuma ak Las ah, liiru dëju daaw da sekk bi histoire na fa saaga ndey ci dëj ku gaañ ndëju ñoom lees dër yi parce que alxuraan li may wax nii ak mu ne amul yàlla bu ma jëriñu xam nga kaamil la ngi nii dëgg ñoom les deux histoire nag ba pamma moo ko jël yëkk di may ko xaaj mu noppi tëju Balla Gaye 2 bii moom Lamine Golo saagante nañ fa ndey ci kanamu jéey Balla Gaye 1 ah tëju anniversaire u père bi saagante na fa ndey ak nit xam ci kanamu Balla Gaye 1 Balla Gaye moo tax ma ni gis nga àdduna liiru na xoolaat doxalinam du dëgg aman aw ma dara kii ñaar lu ma ko yéene mais bu naan man dama ko bañ wala dama ko kii loolu du àdduna du dëgg sooy bañ da ngay bañ koo xam ni sa nawle du dëgg ñi muy xeex ñëpp li ñi muy wax ñëpp maanaam man géejawaay la nekk du dëgg li may wax nii man du ma wax man géejawaay ñoo nekk suma ginnaaw du dëgg maanaam lamb da ngay toll comme li ma rek maanaam boo tollee lii dangay ngay wàcc keneen yéegaat du dëgg loolu mooy àdduna man dama fi nekkoon ay mbër ay Balla Gaye fi nekkoon Aliou ñoo ñu dem nañ ma yéegaat après la de guerre ñeneen ñeneen guy gi comprendre mais man boo duggee ci YouTube bi samay parma def ngay gis ma dem fu ne muy Europe muy état fu ne ma jël fa raaya indi du dëgg kon man man damaa bokk ci géejawaay moo tax ma bëgg rek mu Balla Gaye 2 man suma xarit la daf mu fonk du dëgg Balla Gaye 2 ñooy bokk di entraîné ba léegi du dëgg ñooy bokk di anti reerandoo xam nga moom ak saa kees comprendre kon dafa am loo xam te ni Balla Gaye 2 xam ne ni muy man muy guy gi amul dara luñ ko denc barki alxuraanu kar guy gi mii lu tax mu fonk du dara de du lu ma jox du dëgg oto bi may dawal maa moom sama bopp fi may ne xam mais guy gi lan la tax mu fonk guy gi dañoo bokk ñaari yoon journée ñaari yoon yàlla def mu ma am ndam man ma am ndam ñu daje may defar sama oto moom muy defar boobu Mercedes la yor ñu daje ci mécanicien ci buuba euh, Pape Diop xam nga bi ñu demee ma am pièce ma war a changé événement tabaski yow may weranteeg sa waay naan ko defar ko mun a ma sa waay ni ma non doo defar pièce bi ma ne ko changé bu ma ko changé loolu ma xaar defal ma ko mu ne ma da ngay changer pièce bi noppalu guy gi bi mu déggee loolu barki alxuraan dafa dem yokk su ñëw génn 100000 jox ma ni ma yow jigéen di wuloo ma du dëgg te mënoon na ko ci bañ a fekk xam nga imaginal ban loolu tax ma jàpp ko te te nitu lu mu la wax tàng ne bépp tàng mais foo ko fekk alxuraan lay déglu kurus yi ñu ngi ko gàccoo xam nga dëkk nañ Las Vegas man ak moom ñoo dëkk du dëgg man ak moom ñoo du dëkk liiru jaan dañ ko daan fekk ci beneen kër gi comprendre dafa am loo xam ni xaju fi xam nga gis nga nit waroo wax sax ci internet bi saaga nday di kii nit même boo respecté <coughs> bopp nga nit ñi tu dëgg xam nga liiru da koy xamal ni ko xam nga man awma daray ki ñaan bu ma koy yéene barki alxuraanu karim liiru yaayam dafa baax comprendre ay magam ay rakam dañoo baax comprendre xam nga maanaam dañoo bokk ay nit te loo xam ne lu ñëpp bokk kenn mënu koo xaaj muy géejawaay gi ñu bokk kon nañ rafetal na bàyyi coow nay wax monument boo nee monument del rafetal mais bul ni monument ba pare fu ñu la fekk da ngay xuloo di xuloo la nit di jaxasee loolu baaxul ah liiru dama bëgg na na maanaam na dal xam nga moom comme que yàlla def nit ñi bëgg nañ ko xam nga fu mu nekk day kaf day ree loolu nag na ci boole di dal di defar bañ a xas kenn waaw man su ko guy gi tooñoon barki alxuraanu karim dama naan eh guy yow nekkuloo ci li nga def du yoon mais li ma fekkee benn bi ma fekkee moo ko saaga ndey xam nga saaga ndey la ko def ma jë maa jël ko bàyyi noonu mu sedd. tësëm bi fekk ma fa sama biir néeg la ma fekk guy gi woo ma wax ma xam nga woo ma wax ma man ko bàyyil noonu ci laa ko wax kon xam ni kooku di wax loolu man diiru liiru warul waat waat dafa foor buy waat naan ñii dañ maa bañal dañ maa lii dañ ma lii liiru ku xam ni sax ma ak moom neen sax dalay jéem wax ay wax te àdduna bi noonu liiru ma ak moom déggoo man la dañoo yàlla ndoo defandoo lu ne comprendre xam na moom xam na yaayam xam na ñi ma dëkkal xam na du liiru daaw la commencé tukki mais imagine nit dem na États-Unis ñëw liiru ñu wax dégg ko inter yow yow sax lañ ci lamin ñëw naan li ma li may xam su ma ko waxee gis nga àdduna Europe sutura la ñu ne gis nga ñun amoo droit liggéey du dëgg mais boo fa nekkee bul sax ni maa ngi liggéey neel maa ngi sumay business parce que gis nga loolu yow yàlla may na la visa mais ñeneen ñi nga xam te ni amuñu visa yaa ngi leen yàqal moo tax sutura dafa baax ama neex loolu tax mu mere ko ni ma liiru dem na Sénégal benn yoon taxaw mbër yi lu ne ma wax mbër yi ku ne day day duwul xam nga loolu du noonu xam nga maanaam na xam ni ñun ñëpp géejawaay la benn bopp la kenn xam xa kenn mënu ko xar ñaar mais coow li comprendre nga na bàyyi loolu nay defar kon que monument la dem na ba Balla Gaye ni ko monument di géejawaay monument warul di sax tontante ku ne benn mënul fukk ko ko wax mu tontu la saagal na man xale yëpp ma respecté man du toog booy yi sax dañ maa rus parce que xam nañ man sama wax comprendre bu dee ci liiru jaar nañ fu nekk man ak moom xeex nañ coow yàlla def yu ci bëri jéey moo ñu ci bëri comprendre nga mais dafa am loo xam ni liiru xama dama koy xamal ni ko moom na dal xama suma nit la suma xarit la jàppaluma ko dara du dëgg jéey sax démb waxtaan nañ man ak moom xama jéey dëgg la man ak moom am na fu jaaroon seytaan affaire xale comprendre nga am na fu ñu jaaroon ma téye sama bopp mu téye boppam mais dem na ba xam nii kat xama ah seytaanee bari doole yàlla def xam nga lu mu jàpp lu ma jàppoon ma bàyyi ko moom lu mu jàppoon bàyyi ko ba du ma toog ñaari semaine yoo xam ne bi may dem États-Unis bii paas rek ci jour bi laa ko wax dafa ne ma xaaral ma jox loo loo yóbbaale argent de poche barki alxuraanu karim yëkkati ay euro sax la yëkkati jox ma xam nga avant boobu toog na ma woo ma téléphone ni ma foo nekk man ko dama génn mu ne ma maa ci kii génnal génnal ma ne ko non dama génn après su ma ñëwee woo la mu waat ma ci ngoon gi génn ni ma yónneel kenn ma jox xaar mu yëkkati xaar bu jox ma barki alxuraanu karim kon dafa xam ni man te loolu jéey lu ma defal jéey bi yëkkoon kër ak oto jox ma du dëgg maanaam ay mbokkam dina xam ni loolu seq nañ ko parce que yaayam maanaam mi ngi ci dëgg maa ngi fen yàlla na ko yàlla yërëm muy ko baax jéey lu njëkk dem këram ñambe seet moom fa yóbbu boobu amul dara yaayam bu jógoon dëkk ba barki alxuraan day ñëw indil ma sëriñ ñëw laajte kër ab Abdou Diouf géejawaay bu ñëwee sama kër ma taal sama oto yóbbu ko këram mais jéey bu demee ba am tour boo xam ne aw ma ko géejawaay kon xam ni loolu vraiment sama mission àgg na bi mu dugg ci làmb man maa woo Abdoulaye maa woo Bekaay Mbaye maa woo Lamine Samba xam naa ni ñoom fàtt nañ loolu xam nga man la daan yóbbu làmb am na ñeneen ñu mu daan yóbbu mais yàlla def man la daan yóbbu otoom laa daan dugg comme daan boobu mi ngi soog a am oto otoom laa daan dugg ñuy dem làmb jéey bi mu jógee storom R19 ko njàmbit jëndal boobu benn gone yoru R19 boobu yàlla def na maa ngi xaalis maa ngi nekk maa ngi suma xama maa ngi suma teraanga du dëgg kon bu ko yàlla mayee tey macha allah faalewul moo gét faalewul kenn du dëgg kooku yàlla na yàlla xeeb dool yi hmm. parce que xam naa ne li mu am ni mu doxalee nii mi ngi koy dox doomu aadama yi que dañ naan xam nga dëgg la nag parce que sa nit di nga moom foo xam ne nga leer ni am na ko mi ngi dem di def fële yow nga laaj ko jox la man kooku bu doon man damay damay toog jàpp suma ñaamul hmm. du dëgg parce que man yàlla mi may teral du jee def ma lu ma amul fa may la ma fa dëkk du xaalisam maa ko def du dëgg ak yeneen ak yeneen oto yi may dawal du xaalisam maa ko def du dëgg mais dama xam ne ni day def lu baax xam te loolu muy def nii yàlla na ko ci yàlla yokk waaw mais moo gën nag maanaam dama koy xamandi moo gën dafa nekk ngir koo xam ni maanaam man xamoon naa ne milliardaire lay nekk du dëgg parce que dafa nekk koo xam ni billaay wallaay yàlla rek moo tax lu mu yor doomu aadama yee ko moom lu mu yor doomu aadama yi bi mu ñuy ñëw di ñu indi ñun ñëpp kenn yëgul yëgante wuñu mais man maa ko présenté guy mais fi mu ni mu fonkee guy gi ak fi mu teg guy gi tegu fa kenn ci comportement guy gi la guy gi nit ñi wax nañ ko sonn mais man maa wax te jox na ma jël boo xam ni lu mu wax ak man lu ma ko wax da koy def du kon bu yàlla defee xam nga ñun nañu rafetal muy ama neex muy ñun ñi bokk bu mu gétt comprendre muy ama neex muy muy muy mobile xam nga ah muy muy muy muy keneen ak keneen ñun ñëpp ñoo bokk man ak euh, ama neex moom mi muy wax jour émission bi ama neex mi muy wax di kii defee loolu dama koy dëggal ama neex bi muy saaga ndey kii naan ko da ngaa cuub sa drapeau kii waroo ko ñëw naan ko ay yaa ngi ci la sunu mag kon warul donc moo ama neex kon warul ñëw naan ni ni maa ngi nuyu ama neex ñi si du mu leen nuyu loolu war ko parce que ñun ñoo bokk géejawaay même bu amee nit boo amee loo naqari ko fësal ci ay média guy gi mii am ko naqari ci guy di am na loo ko naqar ci liiru ja te bi mu amee dafa dafa taxaw wax loolu ci kaw gërëm ko kon moom waroon naa ñëw ci plateau bi ni kat maa ngi nuyu ñi nekk ci plateau bi ba pare xam li ma xam loolu la mais gis nga ay affaire u defante amul njariñ amul njariñ ñun dañ see jaar man dama la xool Espagne tëdd naa fa tëdd naa fa tëdd naa fa kaso tëdd fa ndax sama xalam du dëgg man police ma tëb la xam nga tëdd naa kon bu dee man fi ñu ma yàlla jox barki alxuraan du ma ko ndamoo du dëgg mais xam naa li nekk ci man am na ñu bari ñoo xam ne nekkul si ñoom mais su ma demee ba toog dal xam ni kat àdduna amul solo du dëgg xam nga ñun ñëpp benn lañ du dëgg waaw mais daal wax ji maanaam du lu lu bari xam nga moo gën dañuy leeral rek dañuy leeral mais moo gën ci boppam ñun ku mu woo te dafa am ñoo xam ne dañoo soxor de ñi muy déglu eh, Sénégal dafa bëri ñu soxor moo gën ku mu woo nga wuyu man sécurité mooy suma liggéey depuis 2006 Espagne dama ko xam. ama neex coow li ma li ma dégg moo mook mook mook moo mook booy kii jëf jël man bu doon man du am sécurité man dama ko jàng dama ko xam du dëgg moo su ma wooyee dagal ma biyee ma ñëw ay dàllam yéreem su ma ko teeloo ma teegu dugal ko sama poos du dëgg mm. loolu du question ñàkk fayda moo gën ñoo ko mbat mais kilifa la da nga koy nangul du dëgg ama neex d'accord xam nga juum na mais jëf jël it ku baax la jëf jël maanaam ku baax la daja nañ banque ba moo gën daja nañ banque bi muy jox yenn waa kër ñaseen yi ñu daja banque bi tëj banque bi. moo gën man ak ama neex dugg ci biir banque bi. jëf jël ñëpp. doo leen dumala kii bi kii bi foofu seen ginnaaw la. soo bi bi kàlla. soo bi yàqul dara waaye. non li day yàq éponge bi pour loolu la pour filtrer bi ñu duggee bi ñu duggee ci banque bi. bi ñu duggee ci banque bi. Euh, Amadou lu tëj banque bi. xam nga fekk heure bi dafa jot 4 heures. booy kii ñëw mobi kii jëf jël ñëw fëgg woo ma fekk maa ngi toog ama neex ñu toog sama kanam bi mu fëggee ni ma mbër baalal tijjal ma ma tijjal ko bi mu ñëwee mu nuyu ma nuyu ama neex fekk ni ma cegam bi la bëgg a kaas xaalis bi la bëgg a récupérer quoi bi mu ñëwee xam nga nuyu ma nuyu ama neex maanaam nuyul moo xam nga kon dafa am loo xam te ni kon man xam nga man lu mu joteeg moo moom la mais jëf jël li ma wan mooy lu naas man loolu laay dund ak moom mais ama neex dëgg la nag xam nga warul woon dem ak waroon na ñoom nattaan ak moom mu génn hôtel bi. du dëgg waaw mais xëy na juum rek la mais ñun ñëpp ñoo bokk boo génn nañu raxas nañu raxas xol yi. waaw nañu raxas xol yi ñun ñu bokk muy man muy liiru jaar muy guy gi comprendre nga xam nga ñun avant moo génn ñun ñu ngi am teraanga moo moo moo avant moo génn ñu ngi tukki ñu ngi ñëw ñu ngi am teraanga du dëgg kon nañu rafetal liiru amul lenn luñ koy jox rek ñun dem nañ fu ne dem nañ France dem Canada dem fu ne comprendre xam nga fu ne dem nañ ci àdduna bi. moom yàlla def ne daaw la ko yàlla wërsëgal xam nga mu dem kon nañu rafetal nañuy rafetal xam ne ñoo bokk ndey ak dama ni numéro ba mu ko gëjee woo ëpp na vingt vingt ans la wax parce alxuraanu kare mais jàmm numéro ba léegi suma bopp laa ko def 534 44 yow xam nga. deux ak lu ci topp. comprendre kon xam ni xam naa ko. bëgguma yegg indi numéro loolu rek laay wax kon maa ngi jégalu. Mbodj daa leen conscientiser pour jàmm mën a dellu ko. waaw déggoo ma ne liiru jaan guy gi day wax nii rek mais xol xol bu rafet la yoon Balla Gaye 2 maanaam ak keneen ak keneen comme que Balla Gaye moo tax mu naan moo ko tuddee ni ko mooy monument Géejawaay comme Balla Gaye loolu bu sañoon Géejawaay yëpp nekk benn. du dëgg parce que ñu nekk ci ginnaawam ku mel ni Aziz Ala Ndiaye kooku yàlla def ni defar rek lay def du dëgg kon. Guèye bi mu waxee dem sax daf ne ma ma ne ko non mais faaw ñu leeral parce que bu ñu leeralul day mel ni ñu dañ ko soxoree te soxore wuñ ko booy soxore da ngay soxore koo xam dalaa tade comprendre nga ñun amuñu daray ci ñaan luñ soxla liiru xam nga liiru xam naa man xam na du dëgg defandoo nañ lu ne mais comme li doon wax suma grand frère li mu wax lu am solo la xam nga buñ defee lii Guèye xam nga dinañ toog Pape Maman toog xam nga ah kilifa yi yëpp toog xam nga man guy gi moom maay wañaar ruuxam ñu toog lépp nekk benn géejawaay ci combat yi ñu yàlla may ñu si ndam. waaw muy suma combat Gris 2 combat bu ma fonk la. waxuñu nag mais combat la boo xam ne gis nga combat bi ma daanu sarax la. nag ñëpp xam loolu la sarax la. mbër yi dama daan ñëw koo bëreel koo ne Abdou Diouf mun a déet bu ma ko jox seetal keneen. xam nga te bi ma ci daanoo Forza dama ci sant yàlla parce man ba ma gëjee Zerras am naa sama doom bu ndaw sama doom boo xam ne daanaka am na 10 ans ëppal na 10 ans musul gis sama defet ci boobu la ko waaw ëppal na 10 ans kon dafa xam ni génération bu ndaw bi sama defet bañ ko depuis tafaatin lañ ko gën a gis te tafaatin ba may bëri moom maa ko raw confiance dama koy dàq muy daw ah xam nga defete ñëw du la xam nga mbëri ñi fiy coow yëpp ñi fiy coow ñi ñi yëpp dama leen jàpp daan leen du dëgg ma daanu sant yàlla waaw guy gi daal dama koy xamal ni ko jullit la du te xam naa ni da doon tegg tuuma mais géejawaay xam nga nañu waxtaan ñun ñëpp muy Balla Gaye 2 muy Lac de Guiers 2 di remercier ak Lac de xam nga parce que dëgg la kase bi mu bëri bëri moo mais tamit ku am couleur la boo waxee naan Abdou Diouf mooy suma mag mooy suma tëdd fii heure bu ñu ko déggee micro kon maa koy ñaanal yàlla may ko roi des arènes comprendre Aliou Seye 2 tamit mu nekk suma rak ku ma jox cër du dëgg xam ñoom Aliou Seye ñoom booyu waalo yëpp vraiment booy yëpp maa ngi remercier xam xam ni àdduna amul solo du dëgg waaw di remercier ñëpp suma doom day Amady Ndiaye xam nga di remercier euh, pampama moom kenn na ci man kooku boo déggee ma ni maanaam dama ko defal ma ko dara parce que pampama comme li ma dal si jéey loolu ma dal ci moom bi may dem dama koo tàggu barki alxu